lu ñu pare waroon nañu waxtaanee viu parti bi ak dundinu benn bokk yaakaar ci biir tolluwaayu réewum Sénégal waxtaan itam àdduna bi waaw bi ñu waxtaanee loolu bu pare nag comme lu dafa waxul lu ay di njàmbat te dégg ngeen ne am na ñuy doon am ay xalaat ak ay gis-gis yu ñu doon am ci doxalinu parti bi ba def conférence de presse muy waa IRA ñooñu comme ñun suñu parti parti la boo xam ne nii. parti bu résilient la parti boo xam ne 1948 fekk na la ngay dugg ci wàllu élection 2000 nga parti nguur gi ba nëgg ni euh, du parti boo xam ne nii euh, en matière de de de résilience euh, parti bu bu tumuranke la ci loolu mu sàkku moom Aminata Mbengue Ndiaye ci instruction am ne gannaaw réew mi moom porte presse dafa bëri. te am na camarade yoo xam ne ci instance parti bi lañ bokk suñ nekkul responsable de coordination secrétaire national lañ ci parti bi wala ñu nekk membre bureau politique wala ñu jiite mouvement am nañ xalaat yu ñu amoon ba wax ñu ko dama bëggoon nag léegi ñoom ñooñu li ñu xalaat wax ko nañu waxtaan teg waa bureau politique ku nekk ci waa bureau politique wax ci xalaatam si noonu la jox kàddu gi suñu camarade Abdou Karim Mbeng secrétaire national au TIC moom itam mu def document bu am solo mais document boo xam ne nii vraiment dafa sukkandiku ci tradition wu parti socialiste ñu koy ci gërëm mais document bu structuré bu ànd ak jamono mais bu bu bu ànd ak orma ci noonu lañ jox kàdd gi euh, suñu camarade Boubacar Baldé di Sarko mu ma leeral li mu njëkk leeral moom ak ñi mu bokkal kuréel gi mooy ñoom dañoo dajaloo en tant que sarit en am di jàmm ngir euh, xalaat ci ay pexe ay doxalin yuy dundal parti socialiste yuy. tax ba euh, parti bi nekk fa mu war a nekk euh, ànd ak jamono euh, dëppoo ak li nga xam ne mooy vocation parti foofu sax am na ci ci juróom-ñett fukki nit ñu jël kàddu ñu bëri ñu leen wax ne leen mais su fekkoonte ni dundal parti bi rek moo itteel nit ñi mais ni ko bureau politique defee ni ko secrétaire exécutif defee mais bu fekkee kenn ku ne fa nga nekk secrétaire <laughs> union régionale yaa ngi def sa réunion fa nekk département yaa ngi fay def réunion sa coordination communale yaa ngi ko fay def wala boo nekkee jiitu kuréel moo xam cadre la moo xam universitaire la moo xam jeunesse bi la moo xam famille la yaa ngi def sa réunion kon kay parti bi lay parti moom li koy naxasal mooy ñi ñii bëgg mu dox ñu leen ñu leen yàcc ba ba seen loxo yoori loxo donc loolu kay <laughs> ku bëgg a fanaan ci biir néeg ak ku ragal fanaan ci biir ñoom ñoom ñaar bu ñu dajee tëj bu du leen du leen du leen boole kon loolu ñu bëri rafet nañ ko après ñoom itam suñu camarade bu vision soniste xam nga fu xalaat génne rek borom kàngam yi ñu ñuy borom ay borom lijaasa lañu moo xam ay universitaire lañu moo xam ay xam yu xaarala yu yu yu yu yu géeju ci benn xeetu xam-xam bi ñooñu tam dañuy dañuy am seen xalaat muy vision soniste ñoom it ñuy def seen contribution waaye li ñu jàpp mooy ñett yooyu yëpp ak yeneen xalaat yëpp nit ñi génn ci biir politique dañuy def benn def euh, comité de suivi boo xam ne day defaraan dafay définir. Euh, terme de référence Nous jublu ci waxtaanee li nga la ligue la wax vous xam 31 euh, juillet Ma suis yooyu ñetti la te Le 31 juillet le 31 juillet bu ma ce lan Le 31 juillet dafa am élection yu am solo muy élection législative yu war au am Sénégal ñun nag les sénégalaises ak sénégalais ne ñun parti jappalé wuñ Macky Sall Macky Sall ñok Macky Sall dañoo tab Macky Sall daf ko muy candidat ni investir ko fi maison de parti filles 2024 les lu Macky Sall def ñun koy responsabilité même moom sax ñoo <laughs> voilà donc mu loolu bëgg 2024 nga ñun de candidat 2019 maison du parti Ousmane Tanor plus ko les mu mu liggéey li mu tàmbali def ba nit ñi gis ko ah, di ko tiitaru bilan boo xam ne ni bu mucc ayib waxuma pont yi bu ma sasa waxuma pont wu Foundiougne waxuma la terre bi waxuma la stade ak ak ndam yi nga xam ne ni yàlla ñu koy may nag parce que bu ayoon gaaf duñ ko am ci jamonoom muy coupe d'Afrique bi muy une deuxième qualification au phase finale du ak yeneen ak yeneen yooyu dañ jàpp ne kon soo seetloo li xew ci addina bi addina bi di jànkuwante Covid 19 daanaka mu def guerre mondiale ak la xew Ukraine nga xool li xew ci Afrique soowu jant jafe-jafe ñi nga xam ne daanaka mu ngi tëkkatal réew yu mel ni ki Mali réew yu mel ni ki Burkina Faso réew yi nga xam ne ñu ngi mu ngi mu ngi bëgg a jaaxal réew yu mel ni ki Guinée bi saa ñu ko fay dégg muy ruumanaat tey rek dégg naa sax am na élection Gambie alors da ak yi xew diggante réew yi ñu wër yëpp ak Mauritanie ak yooyu ñun ñun dañu jàpp ne lépp lu ñu mën def pour yi xam ne Macky Sall mi nii benn fan bu réew mi amul jàmm ak dal yéene wuñ ko ko li ñu bëgg mooy sénégalais yi ñu bàyyi xel ne Senegal, juróom benn fukki at bimun, ñaar bi mu amee indépendance nag mu ngi nii tigga toju fi géej dafa do fi coup d'état amu fi arrêt du processus démocratique remise en cause des gestions républicaines amu fi kon ñun plus que waa APR plus que waa Benno Bokk plus que sénégalais yëpp ñun wa parti socialiste ñoo am responsabilité ñoo am intérêt wu Macky am ndam en 2022 en 2022 ci élection législative yi am le 31 juin donc juillet loolu moo non seulement ñu ngi mission yi mu yebal ci 30 46 départements yi pour ndokkeel njukkal sargal ñaax soññ organiser jubale nit ñi àndoon ak moom te féewaloo woon ci ay liste waaye ñu ngi soog sàkku ci képp ku bokk PAES foo mënti nekk Sénégal nga dem gaaw pare parrainer Benno Bokk Yaakaar waxuñu rek ngeen yem ci li sa waa département wara pare parrainer wala li sa waa commune rek war a parrainer ñun waa Pastef li ñu bëgg mooy bépp socialiste nga defaat parrainage yóbbu jox ko sa collecteur

maa ngi yemaleegum foofu noonu sama kaddu bi mu waroon na ñëpp ñu ñëpp war jàpp y compris yéen mooy ñëpp war a sargal parti socialiste ci ni muy dundalee démocratie interne ak lan mooy contribution bi démocratie Sénégal réunion bi tey ñu bëri gën a foog ne xeex fi am dajante bopp waaye loolu li muy wane mooy leadership bu parti socialiste ci wàllu démocratie mais également management nu Aminata Mbengue Ndiaye ànd ak jamono dëppoog Sénégalais ci wàllu démocratie waxuma rek xeex bi mu xeex ak fi mu yegg ci internationalisme moom Aminata Mbengue Ndiaye mais xeex bi mu xeex ci wàllu euh, parité D'abord abord quota yi ci biir parti ci biir parti ensuite euh, parité kon le leadership féminin qu'incarne Aminata Mbengue Ndiaye ñun dañ ci sant bu baax a baax loolu moo tax décoration du ko président Macky Sall def waa bureau politique par solis sawa am ci sac am ci fierté te jàpp nañ au delà de l'institution constitutionnelle qu'elle dirige c'est tous les socialistes du Sénégal qui se sentent honorés à travers euh, euh, la décoration du président Macky Sall Ce qui ci l'élection, élection yi ce ma je lay dire, rek ñun waa Parsons que ñu wax Nous Nous wax ci élection du xam ngañ di Sénégal intérêt Benno intérêt Sénégal supérieur ñi xam ne njaboot gu tasaaroo moo gën alal ju tasaaroo bu njaboot gi tasaaroo nañ ci élection locale yi am ay liste parallèle ak ay liste yu daan jàkkaarloo jeex na ku ci gëm yàlla ku ci sa intérêt terroir doon itteel ku ci intérêt Sénégal itteel danga xam ne élection yi béy wéy na mbuus li des léegi mooy intérêt wu Sénégal naka lañuy amee réew mi jàmm ñun mouvance bi ñu bokk lan lañ ko yéene ak lan lañ yéene Sénégal loola nag li ñu ci may chance mooy ñepp nek ben ñun wa parti sos dañu bëgg ben no bokk yakar xamne ne li sos no bokk yakar li indi mouvement présidentiel té ñum toll moy nangu dogalu yalla ku nangu lu yalla dogal do sonu soxal du metti kon loolu motax ñi ñaan fépp ci Sénégal liste parallèle yi doon xëccoo yëpp ñi bayyi xel ñu roy ci leader yi benn bokk yakar ñi nga xamne ne en 2012 bi andé kenn ku ne bëgg yalla jiital Macky Sall ñu and ak Macky Sall ba ndëgg ni chaque jour ñi sen coloré yeesal seen pas-pas ak seen dëggu ci biir ànd ak Macky Sall nangul ko li ko yàlla dox moom it mu seet li mu leen yéene nangu leen li nga xam ne moom lañu am te loolu la Macky Sall wane boobu nag ni loolu nag buñ ci àndee Sénégal day jëm kanam tégay toj gëju dobar kenn ku ne bu yéene sa morom li nga yéene sa bopp rek da nga jox sa morom cër bi nga bëgg ñu jox la ko mu ñu jox la ko ngeen ànd liggéey kon daal na ñëpp ànd nekk benn juboo ñëpp ànd pare ne benn boo ko yaakaar te nag waxi keneen moom bu mu nekk suñu wax bu ñu di keneen nañ toppatoo suñu mbir rek